am lu la ump ci sa wàllu diine jaaxle jeex na leeral fm jégleel na leen seen émission bi di alfatawa alfatawa di émission buy tontu seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine àllarba bu jot vingt et une heures jàpp vingt ngeen ci ànd ak al ustaaz abdallah baaba dieng mu ci feggoo ak ak docteur mouhammad ahmad lo ak seen émission bi di alfatawa ku am ab laaj jëmale ko ci émission fatawa mën nga koo bàyyi ci numéro bii 77 396 42 42 nga mën faa bàyyi sa laaj ci whatsapp bi kumpa tàggalikoon ak yéen ci lu jëm ci seen wàllu diine alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi nuy topp ci seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak seyxana ak docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahu llahu waraa ngeen ñuy topp ci Leral FM bi ci Louga wala keppaar gi ci Kaolack wala salaam bi ci mbakke wala leeral bi ci Ziguinchor wala leeral bi ci Podor ñuy topp ci xam sa diine xam sa diine dégg diine wala ci réseaux sociaux yi moo xam groupe whatsapp soppay fatawa docteur Mouhamed Ahmed Loola wala yeneen dermalo officiel ak yi ni mel ñu ñuy topp ci biir Sénégal ak biir Afrique ñu ñuy topp ci Europe ak Amérique ñu ñuy topp ci Asie ak yeneen continent yëpp ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu toog feex dafa leen ko tey di ñaar fukki fan juróom ci weeru zil qaada weeru digg mille quatre quarante quatre tombeeg fukki fan ak ñeent ci weeru juin deux mille vingt trois ñaan yàlla subhaana taala defal ñu tawfiq defal leen ko euh, <coughs> defal ñu jàmm defal leen ko euh, incha allah rabbi su ko defee cheikh bi ñu jox la nga ibbeel ñu doog ñëw ci leen lu ci laaj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 amma baadu fa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu dégg ak fépp fu ngeen mën di nekk noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci sunu jotaay benn bokk muy jotaayu al fatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko Cheikh Abdallah ñu ngi lay nuyu di nuyu ki nga dendal ci xarala gi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen tawfiq te defal ñu ko kon bismillah barakallahu fikum cheikhana wa jazakum allahu xayran cheikh bi kii dafay laaj ma ni feeg juróomi fan incha allah rabbi ñu dugg ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski mu ni yan atte moo ci aju ak yan teggin la ci lislaam jàngale ak yan ngëneel la am alhamdulilah ngëneeli fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski di ngëneel yu yaatu la ñi nga xamee ne fukki fan yi mujj ci ramadan wala fukki guddi yi mujj ci ramadan moo gën ci mboolem guddi at mi fukki bëccëg yi jëkk ci zul xijja moo gën ci mboolem bëccëg yi at mi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàttal na lool ci ay kàddoom mu ne amul yenn fan yoo xam ne def ci lu baax féete na kaw def lu baax ci fukki fan yi jëkk yi ci weeru tabaski kon loolu doy na sëkk kon lenn féetewu ko kaw da daal di xam ne kon na fukki guddi ya toll ci njariñ ak barke ci mujjug weeru koor nu mu toll rek fukki fan yi jëkk yi yéesu ko yéesu loo xam nag ne fukki yi lay ñëw gën wala ñu ne yii moo gën waaye yéesu ko ndax wax yi nu bi sallallahu alayhi wa sallam lenn gënu ko la wax lenn gënu ko nag warut bokkul ak moo gën lépp am na lenn ci borom xam-xam yoo xam ne damaa gis ñu fatwa ne fukki bëccëg yi e, weeru tabaski moo gën fukki fan yi mujj ca weeru koor waaye loola demewul noonu xadis ba waxut loolu xadis bi def ne dara gënu ko dara gënu ko nag bokkul ak moo gën lépp ala kulli xaal ay fan la yoo xam ne jullit bi war na ko màng def ci aw yiw wu bare bare bare bare nam ko doon defee ca fan guddi yi mujj ci weeru koor la jàng alxuraan ak surtout jàng alxuraan sarxe def lu baax tudd yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ko woor lépp loo xam ne looy def daal bëgg mu fulu la sooy boo rek nga def ko lépp loo xam ne mën nga ko te bëgg mu fulu ñu yokkal la ko ba mu bari lool te yaa bari loolu sooy boo rek nga di ko def boole ak nag lenn ci teggin mooy su xasee dugg ginnaaw yow ku nar a tabaski nga nga bañatee dagg kawar bañ a leeleeti ay we ba keroog ngay rendi sam tabaski loolu it kon dana jaaru nit ci balaa dugg mu waajalal ko boppam lu mu naroon dagg ci kawar mu teel koo dagg lu mu nar a ci ay we mu teel koo def balaa dugg ci biir ba noppi di ko aajowoo wallahu taala alam jazaakum allahu bi kii nee na nga am ko faatu nga euh, defal t-shirt wala lacoste boo xam ni photoom lañ ci def nga koy sol nee na ndax loolu dagan na wala déet nit ko faatu nga defar lu lacoste wala t-shirt boo xam ni nataalam moo ci nekk di ko sol ndax dagan na wala déet ak euh, lu tax daganul su fekkee daganul alhamdulilah nit ka am ku faatu mu defar ab nataalam ci mbubb di ko sol loolu day daganut kuy dund sax ñu def ko lu mel noonu di ko sol daganut ndax nataalu doomu aadama moom eh, dañ koy tere waxuma nag nga jël ko di ko sol soo sa yaram encore kon moom tere nañ ko loolu su fekkoon ne nit ko day dund lim faatoo nag tere ga day gën a feddle ko lu tax mooy bàkkaar ba woon ca defal ko nit kuy dund ba tey mi ngi fi dara soppiku wut waaye daa am leneen lu ca dolli ko waat muy ki faafu nga jël ab photo <coughs> takk ko wala nga di ko yi ci yenn anam yi wala sax ñu def ay statut ñu koy def yooyu day yeesalaat njàqare ci ñi nga xam ne ñoo koy gis te nekkoon soppe kooka mu di leen metti demoon nañ ba seeni xel dal seenu naqar wàññiku nga xëy xëy fësalaat ko yëngalaat seeni naqar ak seeni metit loolu ci boppam bàkkaara la ca moo tax yu noonu daal jullit bi moom dafay teg ci suuf euh, léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy bàyyi ba at ma waaja woon wala ndaw sax ñu daal di jékki-jékki di fësalaat ay yëfam bu dee statut ñu génne ko di ko wan nit yu mel noonu loolu yaa ngi andil ay bokkam ak jëriñaaleem aw naqar Euh, wuy beesaat su ko defee lu mel noonu nekkut loo xam ne lu jaatu la ala xaal lu jëm ci wàllu nataal moom jullit da koy jëfandikoo rek ci loo xam ne lu mënta ñàkk la darura la wala mu doon loo xam ne lu muy garde di ko dencal boppam la rek ngir koo soxla waaye doonut loo xam ne lu muy tasaare la naam barakallahu fiikum cheikhana cheikh bi kii mi ngi dëkk Ndofane nee na am na produit boo xam ne boo ko diwee ci sa sikkim day tax sa sikkim gën gën a saq day tax nga am sikkim daal mu ne ndax dina dagan jëfandikoo ko wala déet. alhamdulilah lépp loo xam ne nit ki da koy taaroo wala mu di ko fajoo dañ ciy xool yaari mbir ndax lor am na ca ak lor jooje fan la toll waaye ñu xool ci it ndax lu laab la wala lu sobewu produit boobu ñuy jëfandikoo ngir muy yokk kawar xëy na sikkim la tudd waaye lu yokk kawar moom lu yokk kawar rek la su fekkee ne du sobe te itam amul yeneen effet secondaire yi muy andil doomu aadama yoo xam ne da koy lor ci wàllu wér yaram su boobaa chariatul islam moom du ko du ko tere mën na koo jëfandikoo naam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na foofu ñu nekk ci bitim réew day dinañ gis ñu bind ni li yàpp bu xalaal la ndax day nekk yàpp nag wala yàpp xar wala yàpp bëy yàpp yoo xam ne mën nañ ko lekk mais nee na seen problème mooy ndax nañ ko rendee rend bu xalaal wala déet nee na am na ci yoo xam bi leen leer ni rend bi rend bu xalaal la mais nee na yooyu euh, ko du yaatu lool mu ni ndax gàtt boo xam ne bu mën a lekk la ci lislaam waaye xamuñu nun ko rendee ndax dagan nañu lekk ko wala déet alhamdulilah xam naa ndax rendi ko xalaal la wala nekku ko li nga xam ne wóor na leen ne xalaal la moom loolu nañ nañ nañ ca yam di ko lekk su fekkee ne lu mën a am la lañuy sikki sàkk ñu bañ ko jëfandikoo loolu mooy li gën a dal xel waaye nag loolu yi ñuy sikki sàkka it ñu xam ne am na àtte li nga xam ne wóor na leen rendi nañ ko maanaam deret tuuru na waaye dangaa xamul rendi bi normal na am déet maanaam ndax tudd nañ ci yàlla walla déet ndax rendi moom mooy tuur deret ci jumtuwaayu rendi ba noppi tudd yàlla su fekkee ne yaar yooyu amu ca wala nga da ngay nattab ndax am na ca wala amu ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci xatte ñëw na ci xadiisu Aïcha radiyallahu taala anha ci saxiixul Buxaari mu ne aw nit dañoo dikk fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nun day dañuy indil ay ndawal yoo xam ne day jóge fu sori te xamuñu ndax tudd nañ ca yàlla wala déet mu ne ko ñoom nañ tudd yàlla rek te lekk ñoom nañu tudd yàlla te lekk ginnaaw da ngay sikki sàkka tudd nañ ci yàlla wala tudd nañ ci yow bala nga xoolee yow tuddal yàlla wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf dafa am jarbaatam bu nekk France yàlla def dafa war a aji le 17 bii nee na dafa programmé woon ni daa programmé pour génne azakam mooy fukki fan yu njëkk yi ci wéeru tabaski la daa génne azakaam te fukki fan yu njëkk yooyu da koy fekk màkk te fee ca France gisul kum ko fa mën a jox mu ni nu muy def ndax da koy yónnee Sénégal avant muy dem wala mën na dem ba ñëw mu joxe ko wala nu muy def alhamdulilah waaw moom de ginnaaw asaka war na ko te waxtu yi mu ko daan génne at mu nekk da ko war a fekk ci aj te it fa muy dunde bokkul ak am réewam te fa muy dunde fu ñuy joxe asaka nekku fa su boobaa day jaadu mu batale ko ca am réewam comme noonu mu ko waxee na ko batale ca Sénégal jox ko koo xam ne danaan ko su weer wi teroo balaa fukki fan yee mat nanga ma joxeel sama asaka ji na àgg ci ña ko yeyoo su defee loolu jaanam dana wàcc wallahu taala alam barakallahu fikum cheikhana wa jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na moom dafay liggéey ci ceg-ceg yi nee na nag yeesa dañ koy woo ci biir liggéey bi ne ko demal nga jëlil ma nangam yónni ko ci ab njabarkat mu leer ko ne kii ab njabarkat la mu dem mu jox ko ay xarfa foofa kii yëf-yëfaan mu indil ko nee na ndax lu demee noonu dina dagan wala du dagan di jeem bàkkaar wala deet alhamdulilah su fekkee ne dañ ko yónnee ne ko demal jëlil ma nangam te moom am na yaqiin ci ne li ñu ko yónnee ak njabar la du dagan mukk mu di ko jëli su ko jëlee mi ngi dimbalante ci loo xam ne lu baaxul la da cay am bàkkaar lam cay fàggu lewut mi ngi mel ne ñu yónnee woon ko sàngara ne ko dem di ko jëli di indi su boobaa loola du dagan day xaraam te njabar ga sax mu ngi yées sàngara sax naam jazakumullahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii neen dafay laaj lan mooy xadis ndax xadis nee na mooy lépp lu yonent bi wax wala dafa am ci yu yonent bi wax yoo xam ne mooy xadis yeneen yi du ci bokk mu ni daal bëgg naa comprendre lan mooy xadis yonent bi alhamdulilah xadis day bu fekkee li ci waroom xam-xami xadis yi di jublu mooy laaj bi danañ ko wax fekk liñ ci jublu mooy sunna buñ ne xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu ne al xadisu nabawi lañu ci jublu mooy as sunna nabawiya muy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su boobaa nag baatub xadis bi day làmboo ay waxam ak ay jëfam ak lam saxal lépp loo xam ne waxeef na ko wala jëfeef pour mu saxal ko it day duggaale ci biir kon su boobaa xadis du nekk waxi kese waaye day làmboo wax ak jëf ak la nga saxal kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa day làmboo waaye loolu borom xam-xam yi xadis yi danañ ko jëfandikoo léeg-léeg it ñu jëfandikoo nag xadis suñ koy jàng ci musalawul xadis séparé ko nag tuddee yemale ko rek ci li nga xam ne mooy wax ñu ne kon lii mooy li yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax yemale ko ci kon daal terme la boo xam ne danañ ko jëfandikoo nii di jëfandikoo nii bu dee ci wetu loxo gi nag moom moom mooy waxtaan rek noonu lañ koy tuddee waaye nag bu dee ci terminologie bu xadis gën naa yaatu lool bu boobaa dañ koy dugal ci e, lépp loo xam ne jóge na ci yonente bi jële diine muy wax ak jëf ak saxal naam jërëjëf cheikhana jazakumullahu xayran cheikh bi kii nee na e, dafa am koo xam ne da doon aji waaye nag bi muy aji nee na dafa doon dafa dafa mugaamar ndax amuloon tasriix amuloon daal Euh, autorité pour mën a dem euh, euh, autorisation pour mën a dem aji nee na musul ay yéreem ba xam ni weesu na fi mu dem ba màkk te la kooku lan moo ko war alhamdulilah charte autorisation ci aj loolu dafay dugg ci cadre li ñu tudde ak taratib al idaariya mu doon loo xam ne chariatul islam xam na ko wala fiqul islam yi xam na ko moo di am amr mooy kiñ dénk mbir ya mu jiite ko moo koy saytu di xool di ko càmbar di xool lay jariñ ñay aji te du leen lor mu dëgëral ko xool la nga xam ne da leen di lor mu dindi ko loolu mooy waral ñu fekk ñoo xam ne dañ ne ñii moom yàgg nañoo aj ñu ne kon nañ teeylu ba am nangami at door dikkaat di aj ci waat ndax mbooloo mi bañ a ëpp bay lor ñenn ñi ba ko musta aj si te bëgg a aj du mën a joxe ak ajam ci ko bëgg a defee kon loolu ijtihaad la boo xam ne bu jaadu la bu tegu palaasam la itam suñ ko teree nag la gën te mooy yow mi nga xam ne yàgg nga aji nga tënku ca loola ngir yaari mbir ngir ngir bu normal boobu yi nga ànd ca beneen ba ca wattandiku lor ci sa bopp ndax mën nga koo xët dem lor ju rëy tege ci sa kaw man nga koo kat it raw nag maanaam lor tegewu ci waaye ala kulli xaal la gën moom mooy tënku ci ki ca tënkuwul nag mu wóor ko ni it mënta armal duggaale ko faaw mu sol ay séram bu yéenee la muy yéene it day continuer soli séram ba màkka mu door a mën a armale mu door a soli ak armalam foofa na xam ne ala kulli xaal ku jéggi ma wàqiit yi moom Euh, reyub gàtt daf lay war maanaam rey ab gàtt war na ko ala kulli xaal ginnaaw dafa soli yéreem ba dugg màkk wallahu taala alam waffaqakum allah jërëjëf cheikhana jazakum allahu xayran cheikh bi kii nee na dafa ñaanal frère am ndimbal ci benn som magam après mu wowaat ko di ko ko fàttali mu ni ko dafa am prêt boo xam ni dama ko defoon ci banque bi moom lay xaar mu génn su génnee ma jox la ci nàngam mu ni ndax dina dagan ci moom mu jël euh, loolu ko magam di may te ma ngi koy jëlee ci lépp bu mu leb banque boo xam ni day jëfandikoo intérêt riba alhamdulilah magam de bu fekkee dafa jël prêt bancaire war caa joxe riba loolu bàkkaar la boo xam ne ci moom lay yem waaye bàkkaar ba du wàlle alal jëm jël ba leb ko ñu lebal ko ko mu yor ko ci loxoom loolo moo ko moom ndax moo koy fay waaye nag nam ko fàggoo lu xaraam da caa nekk kon xaraam na ci moom képp waaye du ko jéggi nag di jàll ci keneen su la ca lebalee sañ ngaa jël su la ca maye it sañ ngaa jël su la ca saraxee danga nga soxla ko sañ gaa jël kon yow mi mu jóge ca moom ñëw ci yow ginnaaw yoon wi ko jële ci moom jëm si ci yow yoon wu dagan la su boobaa alal jooju day dagan ci yow ndax bu ñuy wax alal ju dagan ak ju xaraam du caagi ne xaalis bi nga nëpp ci sa lañuy wax ne xaalis bi xalaal la wala xaalis bi xaraam la waaye na muy dikke yoon wa muy jaar di dikk foofa lay doone lu dagan wala mu doon lu xaraam moo tax ab xaalis dana fay di koy jokk jolente muy seqi benn étape ñu ne boobu bu xaraam la mu jóge fa seqi beneen ñu ne bii bu dagan la ñu ne bii bu xaraam la bii bu dagan la yendoo ko ba ba ngoon na muy dikkee rek question bu buñ ko posé waaja daal yow foo jëlee xaalis bi mu ne nangam foofu la ñuy wax lii dagan na wala xaraam na waa ñu jëkk ji bi ñu ko foo ko jëlee dana dama ko lebi ci banque bi war su may fay nag danaa ci na keneen ko jox yow foo ko dañ ma koo may naa ne ah, may li dagan na ci sharia noonu rek lay demee wallahu taala alam jazakumullahu xayran baarakallahu fiikum cheikhana cheikh bi soxna si nee na moog boroom këram dina defoon lu ñu séparation de corps na nag boroom këram néew ko fase naa la boobaa léegi def na ñaar fukki at même bu fa sëñ bi ñëwee day fanaan xale yi rek ci saal bi loolu daal lay laaj mu ni lu ciy pexe lu ciy xalaat ak lu ciy gisinu lislaam alhamdulilah li ñu tuddee séparation du corps moom loolu lislaam xamu ko nit ñi moom dañuy sëy rek wala ñu tàggoo waaye sëyu leen tàggoowu loolu amul lu ab atte bu ko lislaam di jox boo xam ne atte bu boppam la bañ xasee takk sëy ba rek ab sëye nga fa moo xam ñu ñu ànd ànduñu ñoo bokk fuñ dëkk bokkuñu ko loola moom ñoo xam waaye sëy ba moom ma nga fa ab sëyit du dem ba mu yàgg rek mu jékki-jékki rek ne kat it dagg noonu automatiquement waaye des koy tas mu door a mu door tas ab la koy dindi benn passé lay doon wala mu nekk li ñuy wax xolo muy fay alal wala mu nekk li ñuy wax fasxu nga xam ne am na lu feeñ loo xam ne tax na sëy bi mënta continuer xaadi ñëw tas ko wala mu nekk liaan muy tuumalante ba àgg ci rëbbonte boobaa ñu tas sëy bi ba faw wala rek faatu kenn faatu si su ko defee sëy bi yem moom diisul wax ne moog waa ji dañoo wanante gannaaw ñaar fukki at wala fanweeri at ñu ne sëy ba nekkatu fa déedéet sëy baa nga ko rek ab sëy ñu dundee ci sëy bi nag lu ñaaw la kan mooy sabab si ndax ku góor ka la wala ku jigéen ki la waaye yaa fukk ñaar fukki at ñaar fukki at yàlla ngeen toog ko sequ leen dara te ne ab sëy moo fa nekk loola moom ñaaw na ci ab ànd ñaaw ci ab ànd wallahu taala alam jazakum allahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na ndax dina dagan ci jullit mu liggéeye ci banque yi nga xam ne bank classique yi nga xam ne day day jëfandikoo euh, intérêt riba masalan mu nekk ab caissier boo xam ne moom récupérer xaalis ak joxe xaalis rek lay def moom day la jox xaalis wala mu nekk gardien ba wala yu dem noonu ma ngi fay liggéeyee euh, ci anam boo xam ne daal moom xëy na euh, côté ba mu du moom mooy joxe euh, riba ba intérêt ba mu ne ndax dina dagan ko mel noonu liggéey ci banque yu mel noonu wala déet. alhamdulilah fatawaa yu bare bare bari ñëw na ci tontu laaj bu mel noonu muy liggéey ci banque. classique yi nga xam ne day jëfandikoo ci riba riba dafa xaraam xaraam yéen woo xam ne xaraam wóor te métti la riba moom rek mooy bàkkaar boo xam ne sun borom tabaraka wa taala daf koo tuddee déclaré ab guerre contre yàllaa ko yonentam kon loolu moom ab jullit benn bàkkaar jigu ko waaye riba moom ci yées ci bàkkaar yi ci la bokk loolu moo tax lu ko nit ki mën a sori sori lu mu ko gën a sori rek mooy lu ca gën banque classique yi rek la jëfandikoo ci riba su fekkee nit leb na xaalis buy fay day am lu mu ca teg loolu nag riba la ànd ak loolu damay wax ne ki nga xam ne moo fay liggéey ñu ne ko kaay di bale walla ñëwal di toppatoo eh, yi fi nekk ci ay matériel li ci yàqu nga defaraat ko ñu war a peinture nga peinture wala sax kii réparé ay ordinateur wala muy liggéey daal façon liggéey bu muy liggéey woo xam ne kii li muy liggéeyee moom lu dagana liggéeyee la waaye mi ngi koy liggéeyee nag fi barab bii nga xam ñoom dañuy jëflante ci lii su boobaa kenn mënta àtte li muy am ci xaalis muy ak payam ci ne riba la déedéet du riba moom day liggéey di ñàkk ñu di ko fay kan nag moo koy fay banque ci boppam ab système la bu bu taxaw waaye mënuñu ne nit kii ci boppam mooy lekk riba xanaa mu nekk banque boo xam ne diw sàngam la ko moom su fekkee banque bu nit moom la moom mën nañoo wax ni banque bii eh, borom borom banque bi mooy lekk riba bu boobaa waaye su dul loolu jëmmi banque bi ci moom ab système la boo xam ne la muy def eh, su fekkee lu daganut la opération yu daganut yu nekk ci biir la mu mënuñu ko askanale kenn nit wax ne kii mooy lekk riba waaye mbooloo mu bari ñoo àndandoo daje fa kenn ku nekk di def dara euh, riba ba di am su sota joxoñ kenn nag ne ko yow mii li ngay liggéeyee di ci ñaq lii ngay xëy di ko bale ngoon jot wala weer dee ñu fay la mënuñ su ko wax ne riba la ndax mu doon ko bale foofu ak di ko bale ci jàkk ja moom euh, moom soo réewut waaye nag fi mu koy defee foofu mu indi am lënd moo tax toujours damay wax ne foofu am lënt la ma ne suuta xaraamal li ngay am waaye ma ne su na ko jàppe am lënt nit nag saa buy liggéeyee foo xam ne dafa lënt moom jàpp ne fii dafa war sax ginnaaw loolu nag bu mënu faa bañ a liggéey su fay liggéey nay nay wut feneen saa bu ko amee bàyyi loolu dem ca su ko mënee bàyyi tey tey nag te du ko wàññi dara su boobaa loolu moom la chaq na mooy la gën wallahu taala alam jazakumullahu xayran jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na li mu bëgg a xam mooy jigéen ñaata at la mën a toog toog gisul borom këram ñëwul ndax mu mën a tas wala ñaan baatam ndax nee na dañ ci am kaabu critique daal soxna soo xam ne toog na ñetti at jëkkëram ñëwul doon jëli ci ëmb ñu nëpp nëppal ko ni ko muñal rek te toogaat xaar sa borom kër mu ñëw ñu tegaat ci ñaari ataat yeneen ñetti at mu ëmbaat ñu ne nag euh, ñaata ñaata ci diir daal la jigéen war a toog su gisul borom këram mu tax alhamdulilah xam naa mu ne suta wax ne ñaata at la jigéen di toog ndax at moom bari na ala kulli xaal waaye diir bi nga xam ne jigéen war na koo mën a toog te gisul borom këram ba noppi man ko muñ loolu amul ab diir boo xam ne dañuy wax nàngam la ndax jigéen ñi ci seen jën bopp bokkuñu ci cadre muñ ñaareel bi itam diggante bi yi dox diggante jigéen ak jëkkëram mu demee noo xam ne dana ko jaral genn muñ gi looloo tam jigéen ñi di seen diggante ak seen i borom kër tur wuñ ko am na ñoo xam ne bu seen borom kër lañ xam ci moom tax na bu toogoon fukki at it daanaka mën nañ koo muñ am ci ñoom ñoo xam ne safaanub lool ci lañ nekk am ci ñoom ñoo xam ne it seenu muñ lu metti la waaye seen imaan àgg na koo xam ne tax na sorik seen borom kër du dox ñu dugg ci dara loolu lépp nag li nga ciy jële mooy jigéen ñi tolloowuñ daraja foofa comme ni nga xamee ni it góor ñi tolloo wuñ dara buñ soree seeni soxna ala kulli xaal loolu bu fekkee dañ ko nattale koy nattale attekat lay doon waaye nekkul kuy fatwa moo tax Omar ibn Xataab radiallahu taala an ci benn qissa bu ñuy nattali jigéen jum déggoon muy saalit bi mu xëyee mu laaj te ñu ne borom këram daa nekk ca solda soldaar yooyu jihaad fi sabilillah ñu wax ne dafa laaj doomam ci jigéen jigéen ñaata la war a mën a muñ boroom këram su fekkee ne dafa fàddu maanaam daana ci tukki wala mu sori mu tuddal ko ay weer ñu nee ñeenti weer ñu ne juróom benn weer Omar en tant que amirul muminin mu di génne benn décret daal di képp ku nekkati ca soldaar ya di jihaad ba am fa nangami weer nañ ko delloo ci këram mu am fi ab diir door delluwaat loolu àttekat koy def mooy nattale lam jàpp rek ne lii war naa doy mu jëfandikoo loola doom jëm laaj it diisoo ci ak moom mu wax ko loola kooka it xëy na yëg-yëgu boppam wala nekk la fa moom loola la ko wax waaye bi mu ko ko waxee mu doon loo xam ne it lu jaadu la loolu moo tax mu jëfe ko ala kulli xaal liñ mën a wax foofu mooy ñu nga xam ne ñooy tukki di bàyyi seeni soxna su fekkee ne menn pexe am nañ ko mu muñ mën di dellusi ci lu dul yàgg loolu mooy li gën lu dul loolu mën nga fekk jaamu yàlla boo xam ne bindoo wut ak bon waaye mbon um, dikkal ko te fekk yow mii ko fa bàyyi dem tukki yaa sabab mbon nga lu mel noonu daal ala xaal lu mat wattandiku la ànd ak ne nag mooy yàlla moom ak bi ëmb di ëmbaat moom euh, kenn mënu ko justifier su fekkee ne daa dem ba mënatu la muñ sañ naa ñaan baat benn jëkkër ñu may ko ko wala mu delsi bu ko ko nanguuta may sañ naa dellu ci imaam yi façon sëy ba wala ca qaadi euh, ji nga xam ne moom façon sëy ba ñu tasaat ñu tas sëy ba euh, mu dem yoonam naam barakallahu fiikum jërëjëf cheikhana cheikh bi kii nee na danoo amoon imaam boo xam ni jiite na leen ay julli yu bari ah xëy na tamit moom la ndax nu mu ko xamee jiite na leen nee na daal ay julli yu bari te jàppul te ñàkk jàpp benn nag moo ko tey mu ni imaam boobu léegi euh, dafay war tuub tuub bu dëggu digganteem ak boroomam wala loolu du doy dafa war a bamtuwaat julli yooyu yépp wala dafa war a euh, wax mi nga xam ne ñoom la doon jiite njuumte yi nga xam ni moom la defoon ñooñu tamit kenn ku nekk xool nooy baamtoo wala nee na daal nu muy def. alhamdulilah imaam jooji doon jiite nit ñi te jàppul day maanaam laabut ba noppi tey ko kooku day gàddu na ci bàkkaar loo xam ne bari na lool. gàddu na bàkkaar digganteem ak boroomam gàddu na ko it digganteem ak jaami yàlla yi nga xam ne wóolu nañ ko ci seenu julli te amul kóolute li ci kanamam nag mooy tuub ak fay yi nga xam ne moom bi mu koy julli jàppul te moo ko tey te xam na ne jàpp moo doon farataam julli yooyee su xamee num toll na ko fay soo xamul num toll nay fay ba mu wóor ko ne lim fay moom day ëpp waaye du yées boole ko nag ak tuub julli gi nga xam ne ñoo doon julli ci gannaawam nag jox ko kóolu teem ba noppi jàpp ñoom wala laab door a dugg ci seen biiru julli ñooñu moom seenu julli yàquwut jarul mukk mu di leen ko wax kon na leen bàyyi noonu ñoom la la leen sharia sant def nañ ko moom moo defut la ko sharia sant loolu moo tax ñoom seeni julli wér na moom la julli wérul du caagi ni saa bu julli imaam yàqoo julli maamum yàqu na imaam dana yàqule maamum wérle imaam danañ ko ñàkk nangul ak julleem nangu julli maamum ngir moo ngir moo xam ne ci moom lay dellu te yem taala alam barakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayra cheikh bi kii ndax dina dagan ci euh, alaaji bi wala ajaratu bi nga xam ne mi ngi waaj ak mi ngi waaj a ihram sax la wax mi ngi waaj a ihram avant muy ihram ci juróomi fan ndax dina dagan ci moom mu dagg ay wewam mu lelle ay wewam wala mu dagg ay karaw yu naqam ak euh, yu demee noonu wala du dagan ci moom alhamdulillah kay moom euh, kay duñ ndax dagan na sax waaye sopp nañ ci ki nga xam ne day bëgg a armal mu lawiku dagg itam ci euh, kawaram maanaam watu lépp loo xam ne lu dagana wat la te amul jeexit ci aj gi euh, li dagana wat te amul jeexit ci aj gi mooy lu mel ne naqam lu mel ne ay poqtaanam lu mel ne kawar keneen ko dënn wala yu mel noonu yoo xam ne bëgg na koo dindi lu mu ci bëgg a dindi lu nekk eh, bu ko neexee mën na koo dindi wala sopp nañ sax mu dindi ko ndax mu bañ a aajowoo di ko dindiwaat su demee ba nekk ci biir eh, armal gi xam nga ku bàyyi say wee mu gudd mën ngaa armal ba noppi sa weer damm ngay aajowoo di ko leewi te xam nga ne loolu ku armal ba noppi du ko def loolu moo tax teel ko def moo gën boo demee ba toll ci armalit sangu ba set baax na ca lool euh, laal ay gët itam baax na ci door a armal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko def baarakallahu fiikum wa jazakum allahu xayran waffaqakum lima fihi alxayr wassalah ci tontu yi leeri cheikhana yàlla na la yàlla sàmmal Euh, yàlla defal la tawfiq ak taysir defal ñu ko defal ko mboolem jullit kon bokk auditeurs yi fii la ñuy yemandi seen émission Al Fatawa ba beneen ay bis wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.